Sall yër leen yëglekaay bi di Walf Quotidien Serigne Mbaye Thiam dib jàngalekat ca UCAD di xam ne ni diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko nag diggante Mamadou Dia ak Senghor rek la koy fàttali Sud Quotidien moom dikk ci machine bi nga xam ne rek moo jëm ci parrainage citoyen yéenekaay bi nag ne bëri na ci ay punkal yoo xam ne rek nar na leen a xañ seenuk bokk ci élection présidentielle bi moo waral ba yëglekaay bi dippee ko une machine anti présidentiable Déthié Faye bu pôle non aligné yi nag xam ne ni conseil constitutionnel nag dafa war a communiquer nag ñi nga xam ne rek mënuñu leen a identifier ci wàllu wàllu fichier bi ca wet ga nag na yeesal yi ñu indi nag ci wàllu système parrainage bi nag doonoon na lu ñu rafetlu waaye nag ndekete yoo muy mujjee doon ab bomb ci élection présidentielle yi yéenekaay bi di Vox Populi ne juróom-ñeenti candidat ñoo jot a jàllagum ñaar fukk yaak ñett nag jamono ji ñu saytu seeni dossier fanweer ak juróom nag ñu daat leen di recalé Ousmane Sonko ak yeneen juróom-ñaari candidat ñu daat leen di éliminé ginnaaw bi ñu ñàkkee fësal ab attestation buy xamle ni nag versé nañu ab caution deuxième tour bi nag ñu fas yéene koo tàmbali tàmbali kon tey jii nag fas yéenee doxal ni ñu ko doxalee woon ci tirage au sort bu njëkk bi lu mu ci mënti doon moom ñaxtu gi nag mi ngi bàyyeekoo fu nekk rawatina ci waa kujje gi ci biir yëglekaay bi di Le Quotidien yéenekaay boobee dellu suwaat ci saytu gi jëm ci wàllu parrainage yi ci jamono joo xam ne rek ñaar fukki candidat ak juróom-ñett nag déposé nañu ab recours ngir yu càmbaraat seeni dossier ginnaaw bi ñu leen xamalee ne nag dañoo invalider mënuñoo bokk ci les ndax ay doublon ay parrainage fictif sax ay clé yoo xam ne rek kenn mënu koo jëfandikoo yéenekaay bi di critique daal lu leen dal rek ñoom ñoo ko yóbbee seen bopp ndaxub négligence ndax nag boobaak léegi exigé wuñu ngir ñu jox leen fichier électoral bi bu ko defee ñu mën a xam nag lan moo nekk ci biir lu ni mel nag yëglekaay bi ne ku jégi moom dafa daal di wadd nag ci piège bi nga xam ne rek moom lañ leen piégé ndax ay punkër rek ñoo nar a bañ a bokk ci yile élection laas yëglekaay ne fi mu toll nii kay ñu ngi ci pàcc bu mujj bi nag jëm ci saytu gi ñuy saytu lu jëm ci wàllu parrainage yi libération ni ko tey ji ci talaata ji kay nag lépp dina leer jëm ci ñaar fukki candidat ak ñett yi nga xam rek ñoom ci ñaareelu tour bi tribune yëglekaay ne Macky Sall daal ñi mu àndaloon ci atum 2019 ba moytuwulee nag kenn du leen gis ci la élection yéenekaay bi nag ne Boun Dionne Mimi Touré Aly Ngouille ñoom ñëpp nag am na ñu jafe-jafey parrainage seen bëgg-bëgg ci bokk ci la jongante ba nëgëni si leeragul l'observateur dellu siwaat nag ci coow li nga xam ne rek am na jamono ji ci mbirum parrainage yeeg fichier électoral bi jafe-jafe yi nga xam ne rek jural na ko yenn ci ay candidat yër leen bi la yëglekaay lu soxol présidentiel yu atum 2024 enquête moom daa def taxaw seetlu tey nag ci ñàkk fës gi nga xam ne ñàkk nañ koo fës ci les élection ñoom soxna yi yéenekaay bi ne ci juróom benn candidat yi ñu déclaré woon nag benn soxna képp moo ci jàll ci les parrainages yër beneenub yëglekaay mu di libération jamono ji nag ma ngay dellu soir ci coowal suuf gi am nag ñu ciy tudd maire bu Chérif Lo mi nga xam ne rek teg nañu ko loxo foofee ca Thiès am na ci ñeneen ñoo xam ne nag jamono ji ñu ngi ci contrôle judiciaire bokk na ci Ousmane Sarr mi nga xam ne rek waa gendarmerie dañu koo tegoon loxo ak benn ancien sous-préfet bu Pambal tàggat yaram ñuy àddu jëmale ak jonganteb xaritoo bi doon dox démb ci diggante Sénégal ak Niger yéenekaay bi di record di ñu xamal ne nag Formose Mendy moo sauvé waa Sénégal ci boobee tàggatoo wax ci suñu làmb ak kilifa yi nga xam ne rek ña ngay waxtaan ngir mën a xool naka la ñu war a def rek ngir tànn ab roi des arènes yër leen bi la yëglekaay jeexale yëglekaay yi ak la xew ci kër Mbay Fall mu di ñaari xale yoo xam ne rek dañ leen a fekk ci ab woto bu ñu bâche kenn ki nag ñàkk na bakkanam ka ca des jële ci ay gaañu gaañu alxames ji ñu weesu la ñu réeroon seeni mbokk ba nëgëni si